bokki jullit ci ginnaaw bi ñu bokkee mustu ci seytaane ñu ngi sant sunu borom subhanahu wa taala di julli di selmal ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallama di leen wax yéen ñëpp asalaamualeykum di leen nuyu di leen ziar nuyo boobu ak ziar boobu ñu ngi ciy jiital cheikh seydi aboubacar si mansour xalif général des tidiane ak mboolem njabootu cheikh seydi alhaj malik yépp di leen ziar di leen ñaanal jàmm di leen ndokkeel ci weer wu tedd wii nga xam ne mooy weeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te lu ci nit mos ci senegaal ci maamam seen maam nga ko jaarale di maam Cheikh Seydi El Hadji Malick niki noonu ñu ngi leen di nuyu di ci jaar di nuyu mbooleem kilifa diine yépp di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal wér ak sutura ñu ngi fii nag tey ci jumaay Gueule Tapée di fi dalal sunu soppe seen soppe seen xarit ku réew mi ñëpp sopp ngir yàlla xam-xamam ngir yàlla ak dalam waaye ngir yàlla cofeel gi nga xam ne am na ko yit ci El Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh te loolu ñëpp xam ko muy imam Jabel Koyaate ñu fas yéene ko dalal tey ci seen émission Asala fas yéene waxtaane nag juddu yonent bi alayhi ak fan yu barkeel yii nga xam ne moom lañ nekk di fanu ay burdu burdu bi lu ko waral ak fan la ko maam Cheikh Seydi El Hadji jaar ba indi ko tey ci pénc bi di Sénégal ba adduna bi yëpp di ko def kon nag ñu bàyyi leen ak imam oustaz Jabel mu indi ci leer yaa imam asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, seen Bàcc ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la ndokkeel ci weer tëdd bi ñu nekk di weeru gàmmu euh, di ci ndokkeel aalamul islaami yëpp. Euh, ñu jiital ci nag xaasatan alxalifa sëriñ Babacar Sy Mansour mm-hmm. ataala allahu xayaatahu wa ayadahu wa nasara wa an jamiru usra almalikiya ñu toftal ci rakkam mm-hmm. soppeem amiru shuara yi mm-hmm. di sëriñ Cheikh El Hadji Malick Sy Maodo le prince des poètes borom yaman bihi taabal ilahu li aadamin wa bihi lxalilu najja min anniraani yal na ko yàlla sàmm euh, nuyu sama sëriñ sama cheikhul murabbi sama wasila sama bàyyi sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz ñu ngi koy ziar di ko ci ndokkeel euh, teg ci sëriñ Mansour Dabakh l'ambassadeur de la famille de Cheikh El Hadj Malick euh, sëriñ Mansour Jamil mi nga xam ne tey mooy xalifa sëriñ Babacar Sy njabootu maam Habib njabootu maam Sidi Ahmed ak jullit fu mu ne mboolem turux yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar la maam Abdou waxoon Touba ak Tiwaawan Ñaseen Jaamal ak Canaba kazaka Laayeen wa Njaasaan kum ci rek teralal ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel ndax ñoo bokk yonent bi di la nuyu ci émission bi di Asala euh, di ma fàttali ca euh, tabarakallahu laamiya ba euh, asalatu ra'yi waaw loolu la bi wax kon nag ñu ngi la ci nuyu di rafetlu sa taxawaay ci xadara bi di nuyu caméraman yi ak ñu ñuy seetaan asalaamaaleykum waa imaam tabarakallah ginnaaw nuyoo yeeg ziar yi fan yi ñu ngi nekk ci ay fanu burdu lan mooy burdu ak lu waral ñuy burdu waaw am na solo xam nga li ñu tuddee muxtadal xaal euh, euh, burda baat bi xam nga wolof moo naan burdu mais burdatu la ñu wolofal ko ni burdu euh, burdatu mooy manto baat bi burdu mooy mantu maanaam bu fekkee dugaloo ko ci benn contexte mooy manto en laine la ñu tuddee al burdatu léegi lu tax ñu tuddee ko manto en laine parce que dafa am ci contexte bu tax ki bind téere bi tuddee ko Burda muy Mouhamadul Buseyri nekkoon Égypte nekkoon nitu yàlla nekkoon shaacir waaye shaacir diini kon poète boo xam ni euh, dana am bind poésie am ci wàllu diine xam nga wàllu poésie lu am doole la ci arab yi mm-hmm. boo gisee ñu naan yonent bi ci biir alquran yàlla di ko wax ni wa ma allamnaahu shi'ra mhm. wa ma yanbaghi la ca suratu yaasin wa ma allamnaahu xamaluñ la shi'ra way mhm. wa ma yanbaghi lahu yellu sax ngay way mhm. wa ma anta bi sha'ir doo sha'ir wala bi majnun doo dof parce que ñaar yooyu arab bi dañ ko doon wax yonent bi nan ko sha'ir nga beneen bi ñu ni ko majnun dof nga am na sax feneen ñu ni ko kaahin buxaabakat nga gis nga yooyu arab yi utiliser wuñ ko woon ci terme péjoratif wax ko pour wax ko pour xas ko déedéet parce que boobu looloo fa ëppoon doole parce que yonent bi alei salatu salaam comme yàlla da ko yónni ci ay waxkat mhm. ñoo xam dañu mën a wax muy arab yi mhm. dàqoon fi bind wàllu chiaru mhm. léegi nag ñoom ñu jàpp ni ñeneen ña mën a waxoon ñooñu ca jamono jooju yonent bi alei salatu salaam comme ñoom la woon fekk déedéet moom li mu doon wax yàllaa ko ko sol looloo waral Euh, boo gisee suñu borom li ñuy tuddee xikma li ñuy tuddee xikma mooy sages mën nañ ko tuddee tam savoir fair boo ko yàlla sànnee ci kaw asamaan dafa am ñett ñu ko taataan arab yi dañ ko taataan ci seen làmmiñ moo tax araba dàqa wax ci li yàlla bind moo tax yonent bi comme miracle am alquran la loolu tax yàlla subhanahu wa taala ko ci waxkat yi parce que su ko yónnee ci ñi fi dàqa wax mu wax lu leen yéem su boobaa ñu xam valeur u alquran est-ce maanaam tey bu ñu nee diw mën na bëre dañu koy laaj mbër yi mhm. xam nga ñun ñi mësul bëre mënuñu xam diw mais mbër mhm. xam ne ay spécialisé lañ ci mhm. bëre bu ñu leen laajee waa diw ndax mën na bëre ñu ni waaw ndax laale nañ xam nañ looloo tax yonent bi yàlla subhanahu wa taala yónni ko ci arab yi parce que xam nga lu tax miracle yonent bi mooy alquran yonent bu yàlla xam nga même ci biir burdu bi ci buntu alquran bu séeri di nga dina dina ko ci wax maanaam xeet bu ñëw ah daamat ladayhi fa faaqat kulle mujizatin mi ngi ci biir burdu bi maanaam ci buntu alquran maanaam yonant bu yàlla yónni dalay jox miracle yun ci yàlla Moussa miracle am mooy yatam ba yatam ba yun ci yàlla noox gaalam gaal ga yun ci yàlla saalix gëléemam ga noonu nga koy toppee mais yonent bi moom lan mooy miracle am alquran alquranul mooy mujizatul mujizat c' est le miracle des moo tax boo demee ci téere bi euh, Maurice Bucaille bind la Bible le Coran et la science lu ci bari leeral na ko foofu li ma indi foofu mooy ñetti xikma yooyu benn bi ñi ko taataan mooy arab yi ci seen làmmiñ juif yi taataan ko ci seen xel moo tax juif moo ëpp xam-xam ci lu yàlla bi mhm. <laughs> masalu lazina xamilu tawrat ñoom la ci yàlla di jund euh, summa lam yaxmiluha ka masali lximaari mhm. yaxmilu asfara mhm. bisa masalu xawmi alladina kadabu bi ayatillah wallahu la yahdi qawm alzalimin ñoom la ñoom la beneen bi mooy fa perse yi taataan ko ci seen loxo moo tax lu jëm ci liggéey yi maanaam lu jëm ci wàllu matériel ak loolu euh, perse yi ñu mel ni Iran Irak ñooñu lu liggéeyu loxo mm-hmm. ñoom xikma bi ñoo ko taataan ci seen loxo léegi nag arab yi ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëwee ñu ni shaair la fekk du shaair fekk boobu shaaru dafa amoon doole mm-hmm. léegi nag comme shaaru amoon na doole muy poésie nga xam ni poète bi ci boobu jamono mën na fal mën na folli mm-hmm. meloon ni comme média tey ni mu mel noonu la way meloon borom bi subhanahu wa taala nag yónni yonante bi ci ñoom mu jommal leen yàlla ni wa in kuntum fi raybin mimma nazalna ala abdina fatu bi suratin min mislihi wadu shuhadakum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam tafaalu walan tafaalu fa taqu naar alladi allati waqudduha annaasa walxijara uiddat lilkafirin léegi nag bu seyri daan def chiarul kas bi ki bind burda maanaam da daan def poésie boo xam ne da ciy tagg nit pour am ci dara da daan ànd ak ay buur di leen tagg. parce que boobu baatam dafa amoon doole. macha di tagg ay buur mu noon way. comme ni Abu Tayyib al Mutanabbi daan def mhm. sayfu dawla. dawla mhm. waaw dam ko tagg. wal baxru hus fiihi. Mhm. isa kaana musbida. wax durhu isa eh, am na nu mu ko waxee ci. Eh, li kulli imri'in eh, maa ngi fàtte abiyaat yi dafa bari ci sama bopp. waadatu sayfu dawla attaanu fi fi lxida huwa albaxru xus fihi ida kaana saakinan ala durri waxduruhu ida kaana musbida ñoom antar ibnu shaddad ñoom mm-hmm. nabixa zubiyaani ba ci umrul qaysi umrul qaysi waaw qaysi ñooñu mm-hmm. dañu ca jamonoy asul jaahili dañu mënoon way mm-hmm. bu seyri nag ñëw di tagg buur di tagg ñëpp am bayre am bës ci waxin waxin dëgg la jikki feebar bu seyri mi bind burdu allahu akbar feebar bi mi ngi tudd daawul faalij. daawul faalij. Mhm. mooy AVC. comme si jamono. Mhm. cër yi mënatul. mu feebar ñëpp wan ko ginnaaw. allahu ci biir ci bunt bi mu bunt bi muy bi wax ni yonent bi lañ ko tuddee muy xaddamtu boobu. Mhm. dina ko fa leeral. ba mu tuddee feebar ñëpp won ko ginnaaw. mu ne waaw man yonent yàlla Muhammad lañ ma tuddee parce que Muhammadul Busayri la tudd ñu ngi ko tuddee direct yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam te bàcc naa la wax dara mhm. képp ku am doom tuddee ko yonent yàlla Muhammad ëllëg yi mën xëyam yàlla du la xisaab allahu akbar déedéet alayhi salaam wala yuxaasibul jalilu mhm. fardu samadu mhm. man ismuhu muhammadun aw ahmadu moo tax am doom tuddee ko yonent bi cër la cër la alayhi salaatu wasalaam ah Busayri tëdd feebar mu ni médecin wu médecin mooy yonent yàlla Muhammad léegi comme feebar naa xaar ma tagg ko léegi nag muy def tawassul nag ci yontu yàlla Muhammad moo tax ci benn côté tawassul la mm-hmm. digganteem ak yontu yàlla Muhammad mu tàmbale amin tadakkurin jiiraani bi si salami mm-hmm. muy burdu bii ñuy jàng mazajta dama an jara fi muqlatin bi min muqlatin bi dami am habbati riixu min tilqaai kaadimatin wa awmada albarxu fi zalmaai min idami mm-hmm. ba mu demee nag di tagg di tagg ba àgg ci fa mablagu l ilmi fiihi annahu basharun yonent bi ni jamet ci kanamam sol manto allahu akbar mooy mooy burdu bii. mooy mais leeru yonent bi attanu ko mu xëm. Hmm. yonent bi summi mantu bi raay ko ci yaram bi bu sey riwér ci saa si xiqiwaat. allahu akbar léegi nag. Hmm. yonent yàlla Muhammad ni ko. alayhi salaatu wa salaam la ko feeñu li may wax du nelaw de. Hmm. waaw yaqadatan laa mën a bi xatal an ah. cheikh na ahmada tidiane ca abou samaon yonent bi feeñu na ko mhm. yaqazatan am na ñu ko weddi mhm. waaye dama naan leen yéen ñuy weddi gis yonent yàlla mouhammad yaqazatan mhm. yonent bi alayhi salatu wasalaam gëm ngeen ni ba muy rañaan mi ngi wàcc baytul maqdis cent vingt quatre mille yonent yëpp dekki mu jiite leen julli dem wa taqaddamta li salaati fa sallaw kulluhum muqtadin wa anta al imam <laughs> waaw ngi fi ba tey yonent bi ni jamet ci kanam allahu akbar summi manto bi raay ko mu jug léegi nag xam nga bayit ba ko fekk mu toll dafa ni fa mablahul ilmi fiihi annahu basharun mooy loo tagg-tagg yonent bi doo weesu nit la waaw mooy bunt bi ñu jàng démb sax waaw ah, kay mooy démb muy démb ñetteelu bunt bi ñetteelu bunt bi mhm. fa mablagul ilmi mhm. dayoo xam-xam mhm. fiihi ci tagg yonent bi annahu doo passé ni moom ma maanaam fa mablagul ilmi fiihi annahu basharun ndax qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya alquran la léegi nag foofu yonent bi gis boppam nag ne waa nit laa de waaye yokkal yokk ci wa annahu xayru xalqillaahi kullihim lu yàlla bind maa ci gën bokk maag yéen basharun laa kal bashari te foofu nee na Iblis a ñëwoon waaw waaw jéem ko xam nga moom Iblis moom du bàyyi dara bu mm-hmm. ñu ko waay yokk ci moo tax ñu ni foofu mm-hmm. loolu yonent bee ko ci dolli allahu akbar ci la jël manto bi solal ko ko nag ci la buse wi wér loolu looloo tax burda ñu tuddee ko burdu burdatu mm. moo tax sëñ Mansour borom daari daan wax ni burdatu bur atu la waroon tudd bur atu la mooy sàkku wér mooy sàkku wér waaye ñu tuddee ko burdatu mu nekk téere boo xam ni Cheikh El Hadji Malick radiallahu taala anu mag ñi mës nañ ko laaj ñoom Serigne Alioune Guèye ñoom mm. Serigne Alioune Diop Maymouna ñoom góor gi Ahmed Cissé Pire mës nañ ko laaj ni ko góor gi dégg nañ burdu ku ko mokkal waliyu nga mm-hmm. mu ni wóoruma de waaye waliyu yëpp mokkaloon nañ ko <laughs> waaw tontu bee jub rek waaye tabarakallah dégg naa burdu wëlli wël maanaam dégg naa ko ko mokkal wëlli yu nga mi ni ma waaye ku ñuy jiin wëlli yu mokkal mokkal nga ko allah ndax jëriñ bi ne ci burdu alaaj malik tagg na ci yoon ci yàlla Muhammad mënoon na jël ñu ciy burdu mhm. waaye mbaaxam mu andi keneen foofu it honnêteté intellectuelle ak mbaax ak yaatal bi na ci Seydi Hadji Malick mhm. ku ci ne war na ko jàng mooy nangul xam-xamu mhm. borom xam-xam ndax xam na ni burdatu yonti yàlla Muhammad moo ko cautionné mais alaaj Malik mënoon na jël abada buruuxin taxta junxi dalaami am wajhu mayyata am rubu shamaami ñu koy burde mënoon na jël xilaas mhm. mënoon na jël beneen ak beneen mhm. waaye yaatalam moo tax fa tabarakallah Serigne Cheikh ne honnêteté intellectuelle loolu la amaana almiya bi ci moom moo tax mu dem jël burdu indi moo tax mu jël burdu andi lan la ko wàññi moom dara mi ngi ko mhm. nangul nitu yàlla nangul borom xam-xam nangul ku tagg yont yàlla Muhammad wàññiwul dara donc burdu bi looloo ko andi léegi nag ci fukki fan yi mhm. mu ni léegi comme burdu bi fukki bunt la ak benn mudariya mhm. léegi bis bu ne nañ jàng benn bunt nga xam ni weer wi day teru rek bis bu ne ñu jàng benn bunt bu ñu demee ba fukkeelu fan nag ñu tëj noppale noppaliku fukki fan ak benn bi xam nga lu tax gis nga Maodo Cheikh El Hadji Malick yàlla nañ ko yàlla fayal parce que boo jëlee bunt yi mhm. fukki fan ak benn bi parce que mhm. yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañu werante ci juddu bi juddu bi mhm. ixtilaaf da ci am gis nga sëñ bàcc ñaar yi da borom xam-xam yi d'accord moom amul wute ci yonent bi lu dul lii wuute nañ ci ñaar yi rek la ñu d'accord ñoom ñëpp Abdullahi moo ko jur ak Amina ak Amina jeex na lii moom ñëpp bu dul loolu yëpp am na ixtilaaf loo jël bu ci ñaata weer lañ ko ëmb jabal huda suma bawa wal baha adaban xam nga Cheikh Hadj Malick foofu tawriya la fa def mm-hmm. ñii dañ ñi ñi ngi ëmb yonent bi limuk jaba ñii ni limuk huda ñii ni limuk bawan waaye gis nga Cheikh Hadj Malick ci mën a jàngaleem mm-hmm. ak modestie bam bañ ko laajee yoon ci yàlla Muhammad ñaata weer lañ ko ëmb mu ni balaa ma lay wax ëmb gi dama lay wax ëmb gi kañ la tàmbali allahu akbar maanaam ci ban guddi mm-hmm. la leer gi jóge ci ndigal Abdullahi dem ci ruux mu amina foofu nag moo am sew-sew bu fa ne mhm. xam nga euh, fi chaabi yow ma sana almuxtaari xat xamalat mhm. Mhm. wa qaala sahlu bnu abdullahi di lwadami layla alarubati xalla durru fi rajabin summa almunaadi yunaadi musmic alfahimi tanabbahu anna nuura alqadmi laylakumu qad xalla fi qimatin min athari alqiyami cheikh alxaaji malik foofu dafa andi ñaar dafa ni sahlu bnu abdullahi zul watami kay borom daraja sëhnum abdullahi mu arrix la mhm. dafay bind ci taarixu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu mu ne yonent yàlla muhammad guddi gi nga xam ne ci la leer gu jóge ci ndigal abdullahi dem ci ruxu mu amina mhm. guddi àjjuma la alhaaj malik andi ko ni loolu la sëhnum abdullahi wax mhm. mu ne juumul waaye nag moom taarix la jàng waaye jàngul science Maodo mm. dama jàng taarix jàng science allahu akbar fi cheikh bi yow ma sinal muxtaari xat xamalat mu ni ëmb gi mi ngi am altine. altine parce que bu fekkee leer gi wàcc na ci ruux mu amina. Mhm. ëmb balaa muy déclenché il faut 72. 72 loolu science la koy jàngal Seydou Abdoulahi jàngul science moo tax dafa jàng jàng taarix jàng science. moo tax ëmb gi bu ñu la laajee kañ la tàmbali lëndi la. waaye leer gi kañ la tàbbi ci biiru amina. Mhm. nel guddi àjjuma léeg-léeg la arobati parce que bu njëkk. aruba ajjuma aruba la tudd. aruba la tudd waaw. gis nga sew sew bi fa ne. waaw ah. léegi nag ñu laaj maam Cheikh El Hadj ëmb gi. Mhm. comme ñu ngi ci gàmm gi. Mhm. ëmb gi kañ la ñaata ñaata weer lañu ñu ëmb yonent bi mu ni ay wax am na ci. Mhm. ñii nee nañ sept huit neuf dix onze ba douze am na ñu ni douze. ñu ni koy Maodo yow lan nga jàpp mu ni duma ma li kenn wax. waaye jàppal ni weer wu ne am na yonent bu feeñu amina ndokkeel ko ni ko yaa jur Seyduna Muhammad maanaam chaque mois rek chaque mois rek am na benn yonent bu ñëw tiim amina ni ko ha anti xummilti badran sayyidal umam ñi ngi lay ndokkeel bu baax a baax mm-hmm. léegi sëñ bàcc boo bëggee xam kon mm-hmm. ñaata weer la ñu ëmb yonent bi mm-hmm. da ngay conte nombre yonent yi comme chaque mois am na kenn ku ñëw léegi compter nombre de yonent yi di nga am ñaata weer lañu ñaata weer lañu lañu ëmb yoon ci al Muhammad ñu ni Maodo bindal mi ni wa jaa Adamu. Mhm. tabshiran mhm. wa shiishu laha mhm. idrisu nuuxun wa huudun walxalida simi summa zabixu kalimullahi kilmatahu fi awali chahri fi tartibi laa tahimi allahu akbar léegi jëlal wa jaa weer wu njëkk bi nee na aadama moo feeñu amina ni ko maa ngi lay ndokkel de yaa jur seydina Muhammad waaye nëbbu de bu ko wax kenn. ah waaw min min baadi maa xat xalaa waawun yuqaalu laha ha anti xummilti badran sayid al umami isa wadaatihi boo juree doom ji jibril moo ko waxoon ca sixième mois ca ëmb ga moo tax Maodo ni min baadi maa xat xalaa ba wéyee waawun six mois ci ëmb ga yuqaalu la deefu wax amina haa yëgal ni anti yow xummilti dénk nañ la badran weer wi sayid al umami isa wadaatihi boo muccee nag sammihi muhammad tuddee ko muhammad baatu muhammad mooy ki ñu baril ak cant ca moom ñépp a ko sant foofu tur bi jógee Muhammad Muhammad loolu ñi ngi ko masdar bi loolu la mi ngoog ñi ngi ko fàccee ci xamd mooy kii gis nga sëñ bàcc est ce que xam nga tey boo demoon kaw asamaan di laaj Muhammad xamuñu ko boo demoon asamaan waaw yonent bi ak li tur bi di siiw fii yëpp waaw waaw loolu mooy turu suufam kuy dox ku ne da nga am ismu aalik ismu nazil yonent bi ca kaw asamaan tudd fa Muhammad xamuñu ko sax ahmadu la tudd ahmadu moo tax Cheikh na Tidiane yi doy waar kooku dinañ ko préparé le mbir moo tax mu daan wax ruuxu wa ruux yi wa ruux yi hakaza mm-hmm. <laughs> sama ruux ak ruux yonante bi benn la soo demee ci kaw asamaan xam nga moo tax yonent yàlla Isaa ba muy déclaré ñëwu yonante bi xam nga wax na ko ci injil mm-hmm. wax na ko ci ancien testament mm-hmm. alxuraan andil ñu ko yonent yàlla Isaa nee na wa mubashiran bi rasulin yaati min baadi ismuhu ahmadu wa huwa muhammadu ndax boobu yonante bi wàccagul woon ci kaw suuf waaw parce que moom tur ba mu jàpp ca kaw. <laughs> ca kaw la wàccee ci suuf. Ah. waaw indiwul tur bi nga xam ne mooy asala bi dëgg ci. très bien ci waaw bi mu jëlee ci kaw rek la ñu wax. am na junni tur boo demoon ci kaw géej gi jën yi am na ñu koy wooyee nga dem ci xar yi am na moo tax kenn du yonent bi. alayhi salaam wa ma xalaqa rahmaanu shay'an li nafsihi siwa sayyidil mahmud wa huwa habibu waaw jara baaqil xalqi taadima hibbihi tahiyaatu ilahi alayhi tatub lii dox lépp caméra yi wëkk ngelaw li ñuy nokkeek kilim bii di tàkkak montre yi daw ak lépp yàlla nga ko branché ci xiblatul arwaax yi mu yontu yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu wasalaam weer wu njëkk bi aadama ñëw aadama wa jaa aadamu tabshiran mhm. weeru ñaareel bi nañu compté chiichu ñaar waaw mhm. chiichu laha idris ñett ñett noox ñeent huud juróom wasilil xalil wasimil xalila ak yonent yàlla ibrahim juróom benn yoon noonu voilà juróom benn summa zabiixu topp kañu naroon a rendi ismail muy ñaata mu juróom ñaar ah mu juróom ñaar kalimullah ka doon wax ak yàlla wa kallama allahu musa takliman muy ñaata juróom-ñett juróom-ñett kilmatuhu secret yàlla mooy ki wax ci birsu te boobu liir la mhm. mu yonent yàlla Isa muy ñaata neuf neuf kon neuf mois la ñu ëmb yonent la ko alaaj Malik leerale dajjiwul waxu kenn waaye nee na konteel rek weer wu ne am na yonent bu ñëw ndokkeel ko nañu toll rek noonu la ñu noonu te ci lii jiitu loolu am na téere indi ne fukk la wala fukk ak benn wala fukk ak ñaar dajjiwul kenn te yooyu yëpp andi na ko ci jabal huda indi na ko ci jabal huda mais bi muy leeral dafa leeral yonent yi nga xam ne ñëw ñëw ndokkeel si amina jeex na nañu toll rek nañu toll rek jeex na te ku ci nekk benn weer weer bu nekk sa mooy jeex na mu juróom-ñeent yi. neuf mois la ñu ëmb yonent muy neuf yow. aleyhi salaam wa jaa aadamu tabshiran wa shiishu laha idrisun nuuxun wa huudun wa xalil sami summa zabihu kalimullahi kalimatuhu fi awwali shahri fi tartibi wala tahimi léegi ñu ni ko waaw d' accord nañ léegi kañ la yonent bi alayhi salaatu wa salaam juddu. Hmm. mi ngi judd ci fukki fan ak ñaar ci weeru gàmm. loolu nag ma ngi la koy leeral ca nuuniya ba. ca nag ba yonent bi alayhi salaatu wa salaam hmm. moom yonent bi. àndaale mbégte muy gàmm gi wallaay leer ci gàmm gi àndaale mbégte ci gàmm gi moo tax maam Cheikh El Hadji ni gàmm gi ci la jàpp rek di màggal guddi juddu yonent bi waaye yonent bi bés ba mu juddoo mbégte la mhm. weer wa mbégte la mhm. at bi mbégte la sururun fii fii sururin mhm. fii sururin mhm. Mhm. waidun duna ayaadil wa uyuuni wa mawliduhu bihi sharafun wa xiirun fa fi taadimi injaaxu sujuni màggal guddi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ngay amee fajug aajo adduna ak allaaxira allahu akbar ki ñu fàggul loolu mooy Seydi El Hadji Malick yàlla nañ ko yàlla fayal radiyallahu taala anhu barakallah léegi liñ ciy laaj mooy def nañ Mouhamadul Boucheri war na ko nga indi sax ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam duggee ci foofu léegi li ñu bëggoon xam dëgg-dëgg mooy fukki fan ak ñaar yi nga xam ne mu siw ci gàmmu gi léegi am ñoo xam ne dañu taxaw ne gàmmu gi kat dafa nekk ci benn euh, mbir moo xam ne wàllu bidaa la lañu ko tekkee ñooñu lan mooy doon sa tontu ci ñoom waaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam nga bidaa maa Maalik wax na ci gàmmu nee na mm-hmm. bidaa la mm-hmm. alaaj Maalik wax na ko mais dafa ne bidaa muxtasana ah. bidaa la bu ñu rafetal mm-hmm. parce que bidaa xam nga euh, gaa ñi li leen di daaneel. mooy kullu muhdasatin bidaa kullu boobu du kulliya juzuiya la. dama la jox exemple ci alquran. incha allah Moussa ba muy sàkku gis yàlla ba ba waaw ba mu ne incha allah Ibrahima. Ibrahima ba mu ne suma borom. wan ma ni ngay dékkilee ñi génn at maanaam ñi faatu. yàlla dafa ni ko ndax gëmoo ma. Mm-hmm. rabbi arini kayfa tuxil mawta. ah waaw wan ma ni ngay dékkilee ñi faatu. yàlla def na aw lam tu'min gëmoo mi ni ko. bala walakin li yatma'inna qalbi dama bëgg sama xel dal rek. ndax boobu ngi ci xaalu shakki. léegi nag ba loolu amee. borom bi subxanahu wa taala ni ko léegi. ngay def mooy utal ñeenti njanaaw. ñeenti picc. fa xuz arbaatan min at-tayri utal ñeenti njanaaw. njanaaw bu nekk nga dagg bopp bi. teg fële léegi nga boole seen jëmm ci benn gën dëbb ko boo ko dëbbee nga saam ko teg benn bi penku sow nday joor càmmoñ yaa ngi dégg de mhm. ñun ci Ibrahima dafa ne yàlla wan ma ni ngay dékkilee ñi génn àdduna mhm. parce que ñoo xam ne lekk nañ leen ba ñu jeex booy booy bindaat jëmm yi nooy def yoon ci ibrahim nga xam ne mooy abul mu muwahidin bàyyi wéetalkatu yàlla yi mhm. nga xam dafa judd rek bañ bokkaale bañ bokkaale bàyyam azara daan jaay xërëm waaye terewul dem na ni yàlla dama bëgg nag tey sama xol fixé wu ndax xol dafay wëlbatiku mi ni ko wan ma ni ngay dékkile mi ni ko ah gëmoo gëm naa yàlla dama bëgg rek sama xel sama lay dëgër mag ñi niñ ko daan firi sama lay dëgër mu ni ko utal ñeenti picc bu ci ne nga dagg bopp yi teg nga boole jëmm yi dëbb nga saam ko penku ndeyjoor càmmoñ lépp léegi nag jëlal bopp picc yi picc bu ne nga woowee ko turam am Cheikh El Hadj Malick nee na lijjanti naa ba xam maam Ibrahima picc ya mu randi woon ban ak ban la. ban ak ban la allahu akbar yan xeetu picc la. radiyallahu taala. alxuraan andiwu ko waaye Maodo gëstu na ko ñu ni ko bindal mi ni man lam yatir anhu tuyurun arbau fa ruuxuhu ila al ula la tarfau maam Ibrahima rendi na an nasru. wa diiku wa taawusu wal xuraabu raaiha ba xasida bi jeex. te gis nga maam Cheikh El Hadj Malick yal nañu ko yàlla fayal. amiin ya rabbal alamin mu ni maam Ibrahima rendi na jàmbu jóob. moom la ñuy tuddee pan ci tubaab. pan ci bu ñu koy bind nag pawon la ñuy bind. Mhm. mais pan la ñuy liir pour ndaw ñi ñuy seetaan. dëgg la ren dina jàmm jóob ngeen jàpp ko. Mhm. léegi nag dafa am lu tax. choix wu picc yi Maodo leeral na ko. Mhm. ndax picc bu ci ne dafa am jikko buy nelaw ci yow. te ku yàlla bind jikko boobu mu ngi ci yow boo ko rendiwul ci yow maanaam sa ruux lu àgg ci yàlla. na maam Ibrahima rayee woon picc yi. kon jikko jooju noon nga ko war a ku rey jikko ñeenti picc yooyu ci yow budul loolu fa ruuxuhu ila al ula la tarfaaw doo am cër ci xalatul ilahiya fii rek nga yem. waaw jàmm jub dafa rëy. très bien. jikko joojoo ne ci moom jikko yi rëy. moo tax choix bi yàlla xam na lu tax mu tànn jàmm jub. te yonent bi nee na boo wàccee sa bopp. man tawaadaa lillah rafaahu llah ku wàcc yàlla yëkkati la. alaaji Abdou Fala rewe woon ñëpp. man tawaadaa lillah rafawullah moo dal Seydi Hadji Malick li mu bind ci xam-xam yëpp bàyyi fi yëpp ni nañu leen jëli naar bu tudd bu séeri andi ko waaye kii xam nga ni woyof na honnêteté la mhm. nañu nangulante xam ne égyptien la bëgg a dëkk ci Alexandrie ah, wax dëgg yàlla mhm. moo andi suñu mbiru tariqa yi tey giw diw moo gën tariqa giw ma te maam alaaji Malick nee na tariqa boo jàpp dina la yóbbu ci yàlla nangulante léegi picc yi jàmm jóob moo de mu rendi jàmm jóob mhm. rendi na mooy coq quoi rendi na moom it am na jikko buñ ne ci moom rendi na tan mooy vautour ci tubaab moom it dafa am jikko ju ne ci moom rendi na baaxoñ mooy corbeau ñeenti picc yooyu la rendi léegi ba mu leen rendee mu jël bopp bi danaan jàmbu jóob nga gis te ñeenti saam la ko def de bépp yàpp bu bokk ci jàmbu jóob day rocceeku xàmmante jékki composé wu nekk jëmm jàmb jóob yàlla teg dunq mu teg bopp bi mu sab di dem mu ni tan yàpp yi ànd ak tan yëpp xamante nekk jëmm mu teg bopp bi mu sab noonu la ko defee ba ñeenti picc yi jeex maam ibrahima ci la sujjoot ni aalamu anna allaha azizul hakim maa ngi seede ni yàlla mooy borom kattan mhm. yàlla xarañ moom nga jàng ci alxuraan ni awalam tu'min qaalu bala mu ni ko fa xuz arbaatan min at-tayri fa surhunna ilayka summa jaal ala kulli jabalin minhunna juza summa ad'uhunna yatinaka saayan waalam anna allah azizul hakim léegi xam nga lu ma ci lu ma ci intéressé wa jaal ala kulli jabalin kullu jooju kullu ji juzuiya la na nga jël montagne bu ne nga teg fa benn jëmmu picc waxul yëpp te pourtant kullu la wax kullu la wax léegi ci la kullu muhdasatin di dugg. boobu jo nekkul lépp loo sos bidaa la. mag ñi sosuñu. Mm. dañu sof. Mm. yontu yàlla Muhammad chaque altine daan na woor bañ ko laajee lu tax mu ni ndax altine ci laa judd. kon mi ngi matérialiser màggal. juddoom juddoom ci daan woor. ci daan woor benn. Mm. ñaareel bi. yàlla moo njëkk a gàmmu inna allaha malaikatahu yusalluna ala <laughs> ya ayyuha alladina amanu yàlla du julli du woor du aj màkka du saraxe du dem jàkka du du yàlla amul lu mu sant nit ñi di ko def ba mu des lenn julli ci yonent julli ci yonent inna allaha yàlla wa malaikatahu ak soldaawam ya yusalluna mu tëgg ko fi'lun mudaari' isharatun bi mudaawamatil fi'li yàlla du deñ di julli ala nabi ci yonent yàlla muhammad kon ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi yéen jaan ñi ma gëm di leen julli ci moom yàlla njëkk a matérialiser loolu moo tax Cheikh El Hadj Malick dafa dégager responsabilité ni gaañ yi màggal leen guddi juddu yonante bi waaye bu jengul jëm ci lu xaraam alaa azimu layla alwiladati xisbatan <laughs> isa lam yakun naxwa alxaraami udulu moom dégager na responsabilité moo tax nag ah euh, ci boobu cadre la du bidaa du dara déedéet tax batu xisbatan xisbatan mooy na ngeen ko sellal mooy bu leen ci rax lu ci lu ci lu ci bokkul waaw ñaata yoon ay mbooloo dajale mawlaaya salli wa sallim daa iman abadan léegi ci lu gàtt bat boobu lu muy teg mawlaaya yow suñu borom mi méngoo suñu mbir salli yàlla na nga julli wa sallim yàlla na nga sëlmal mawlaaya salli wa sallim daa iman abadan xam nga lu tax tax mu foor euh, est-ce que xam nga buddu ku ko jàng dëgg sellal ko gis yontu yàlla Muhammad alayhi salaatu wa di nga ko gis balaa ngay génnaat. sallallahu alayhi wa sallam. imaam Nawawi. moo sharxa. Mhm. burdu bi. Mhm. ci début bi. Mhm. da doon dafa jàng burdu ba mu jeex gisul yonent bi. mu dem ci benn mu dem ci Busayri wax ko. ni ko yow sa téere bi kat maa ngi koy jàng gisuma yonent yàlla Muhammad mi ni ko ah déedéet bayit boo jàng rek da nga ciy roof Mawlaaya Sall. Hmm, daf ko jàng ba mu jeex. te gisul yonent bi alayhi salaatu wa salaam. mi ni ko waa bayit boo nee amin tazakuri jiiraani bi si salami mazajta damaan jara min muqratin bi dami mawlaaye salli wa tax burdu bi saa ñu ko gaa yi tontu ni mawlaaye salli. bayit boo jàng rek foog nga wax mawlaaye salli. parce que pour nga gis yonent bi foog mu ñëw. gis nga mawlaaye salli wa sallim. Hmm. daa iman abadan ala habibika naa la ko firi léegi. Hmm. mais dama lay wax njariñ bi. soo ko waxee benn yoon place bii nga toog wax ko. ba déwén yàlla mi ngi lay bindal yoolu kuy julli ci yonante bi alayhi salaatu mooy daa iman abadan bi nag mooy tànk àddunaa ngi existé sa benn mawlaaye bi nga wax day fonctionné ba baa ngay génn àdduna allah moo tax mu ni daa iman abadan acca mawlaaye yow suñu borom salli mhm. yàlla nga julli wa sallim na nga selmal daa iman mhm. ci lu sax dàkk abadan ba ilaa yawmi diin ci kan ala habibika ci sa soppe sallallahu alayhi ala habibika kooku ay kan xayru xalqullahi lu yàlla bind moo ci gën kullihimi sans exception te foofu duggul sax turu yonent bi daf ko ne sa soppe parce que mooy habib mooy habib parce que habib kon foofu dafay wax yàlla participer ci <laughs> julli parce que ñun est ce que xam nga bàcc ñun mënuñ julli ci yonent bi déedéet mënuñu ko nit mënu ko déedéet ñun musuñu julli sax ci yonent bi ma ma wax la loolu ak li ñuy julli yëpp <laughs> ah yow yow yow booy julli lay wax allahumma da ngay ah, da ngay yàlla julli ci yonent bi voilà kon lu ñu allah ma yow yàlla kon yàlla yàllaay julli xam nga kan moo firi loolu ala jabdu waaw mu ni ñun dañu weex mhm. yow nga ñun dañoo ñuul nga weex nga weex dëgg la ñu tilim nga set mhm. nga njool ñu gàtt mhm. kon daal yow yàlla delloo na service bi salli alayhi jullil ci moom jullil ci parce que tuuti nañ ci moo tax nga ne allahumma yàlla salli yàlla nga julli parce que ñun tuuti nañ ci moom ndax xam nga lu tax xaqa qadrihi moo tax allah au miqdaar yi parce que xaqa qadr yi mooy darajaam miqdaar yi mooy keemam day poids bi la bii mesure bi mhm. moo tax salaatul fatihi ëpp doole ci salaatu yi mhm. ndax mooy salaatu bi yàlla julli ci moom moo tax ñeent buntu la allahuma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih ma ughliq neel benn benn allahuma salli ala sayyidina muhammadin al-khatim lima sabax ñaar allahuma salli ala sayyidina muhammadin nasir al-haq bil haq ñett allahuma salli ala sayyidina muhammadin al-hadi benn bi dellu ci yàlla julli bi mu julli ci yonent bi ndax inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi muy benn ñaareel mooy malaaka yi julli bi ñu julli ci yonent bi beneen bi mooy ñi gëm yaay la si na amanu jullit ñi julli bi ñu julli ci yonante bi mhm. ñeenteel bi mooy julli bi yonante bi di julli ci yonante bi yonante bi day julli ci yonante bi yonante bi daam daam na def salaatu ala nabi te ci boppam la <laughs> waaw léegi ban yonant moo doon julli ci ban yonant Muhammad ibn Abdillah moo doon julli ci Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ndax yonant bi ñaari faas la Muhammad doomu Abdullah ak Amina bokkul ak Muhammad leer bi nga xam ni wa innahu is arada allahu nachatana abana min nuurihi nuuran nabil alam ci la yàlla amal lépp inna al awalima aaliha wa saafilaha mm-hmm. ashiatun talaat min afdali nasami mm-hmm. moom nga jàng ca uh, taysir ba nuurun mubiinun ata nuur al mubiin li irshaadi al ibaadi jamian rabbi yàlla maa fi lbariyati man lam tasqihi karam min nuurihi rabbana yallahu yallahu moo tax sëñ Mansour borom daara yi ba muy kari ba muy radd ak di tontu ki defoon caricature ci yonent bi fa tabbat yadaakum ayyuhal usbatu allati tusiu bi rasmil badri sirril bariyati loolu la ko wax dafa ni euh, ndax tey tey kii di filmer mhm. maanaam lampe bi nga xam ni moom lay leer leer biy jóge ci lampe bi mhm. photo mënu ko jàpp mhm. te yonent bi leer la moo tax moo tax mu ne ko kenn mënu ko melal du ci bind du ci dara ndax bàcc yonent bi gën ci lu yàlla bind xam nga lu tax ñu war a gàmm lu tax ñu war a sant yonent bi à part layuk Seydil Hadji waaw koo xam ni ci barkeem la yàlla amalee lépp bàcc ndax yëg nga ni yàlla amul lu mu bind ngir moom wa ma xalaqa rahma shay'an yow da nga dégg allah si waa Seydil Mahmoud maa ngi noonu moo tax ba muy leeral te dafa am lum ñu indil law lam yalax fii fadail kawni talaatuhu tabqa albariyatu fi dalmaayi ataawal ah, kufru tey mhm. te loolu xam nga ataawal kufru loolu Cheikh El Hadj Malick ko doon lu ci moom nag waaw mhm. mhm. <laughs> ah, El Hadj booy xool dafa am ay ay ay ay similitude ak yonent bi am na loo xam ne sax ëpp naa wax ci télé waaye El Hadj Malick ponkal la bi kon mag mag kon daal julli ci yonent bi sax màggal juddoom la. waaw waaw sikk amu ci. julli gi nga julli ci yonent bi màggal juddoom la. parce que moo ñu andil loo xam ni dama lay wax dara. ala yonent bi alayhi salaatu xam nga Busayri sax wax na ko ci Muhammadul Ashraful Arabi wal Ajami. Mhm. Muhammadun xayru man yamshi ala al-xadimi xam nga wax na ci biir ni Muhammadun ruuxuhu dikrun li anfusina. voilà Muhammadun shukruhu fardun ala al-umam mhm. bàcc ndax yëg nga ni nit bu daan sukuraat. lu jiitu dikkug yonent bi alayhi salaatu wasalaam day sonn lool waaw ba ñu laajee yonent yàlla Suleymaan nit kiy sukuraat di génn àdduna métit bi nu mu mel mu nee na mi ngi mel ni xar wu ñuy fees mu ko yëg sukuraat noonu la meloon waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo garanti suñu borom ni ko sama xeet bu ñuy génn àdduna wextanu dee moo tax ba mu génn àdduna dafa doon wax inna lil mawti la sakaraat wextanu dee metti na yonent bi di ko wax jalaala rabbin rafiin di ko wax laa ilaha ba ni mu génnee àdduna mm-hmm. mu ne yàlla wextanu dee boobu bëgg naa ku bokk sama xeet buy génn àdduna wextanu dee bi yenn ma quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi yëpp moom mu dese benn benn moo tax mu daan wax ni almawtu raaxatan lil mu'min dee noflaay la ci ki ma bëgg man yoon ci yàlla Muhammad ci ki ma gëm man yoon ci yàlla Muhammad la Serigne Cheikh doon wax ku fayewul dundam fekk victoire lay doon mm-hmm. su ko defee nag yonent bi alayhi salatu wasalaam loo tax maam Cheikh El Hadj Malick ni inna salata mamnuuka la axiru ma awsa bihi Mustafa mais mu teg ci fii xaalatil alam ci jamonoy méttit hmm. ga ndax deewam dafa métti waa ki la yeenul loolu nga xam ni tey booy génn àdduna yow jullit dangay mel ni kuy nelaw ndax kooku jarul màggal guddi juddoom ndax euh, yellul ñu jël suñu alal togg ay ñam wan ni kii moo ñu andil mbégte kii moo ñu sauvé mu yonent yàlla Muhammad ahankay waaye nag isa lam yakun a xaraami udul nañu fexe rek ba bu mu jeng basculer jëm ci lu xaraam ay góor a jigéen di jaxasoo ay tëgg ki fecc parce que moo do foofu xisbatan la jiital xisbatan la wax na sell de na sell nañ ci sàkk yoolu yàlla baalu xisba bi loolu lay tekki nañ ci sàkk yool bu juge ci yàlla waaye nag am nañ lay kan moo woote alaaji Malick fan ca Tiwaawan am na ci ndigal te alaaji Malick du fo moo tax fa tabaarakallaahu lay boobu lañ ci am. dix minutes rek moo ñu desee fa tabaarakallaahu fi nga dugg jaar ko ci yonent bi. salaay salaam yéeme na loolu. Mhm. mais ki bëgg a am shawxa mhm. ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Mhm. mahabba boobu. lan nan la jullit di def ba am ko ci yonent bi. am ko ci yonent bi est-ce que tam obligation la. Ah, est-ce que jullit obligation la mu bëgg yonent bi. waaw waaw wa waajibun. taatul haadi mahabbatuhu. alaaj maa ngi ko wax waaw. kaza tibaacu allazi yati min al umam loolu moom alaaj Maalik la ko wax wa waajibun dafa war taaatu lahaa di topp aji gindéegi muy yonante bi alayhi salaatu wasalaam waaye tam wa waajibun dafa war mahabbatuhu bëgg bëgg ko ah waaw xam topp bi bëgg bi yëpp dafa war waaw nit waajib la wax ah, dafa war dafa war mooy mooy boo ko deful yat dal la parce que yonent bi mooy unique yoon bi ngay jaar pour dem ci yàlla maanaam amul nit fu mu mën a jaar àgg ci yàlla lu dul ci yonent bi maanaam yonent bi mooy jëmmi maanaam yàlla bu doon da nga bëgg àgg ci moom mi ngi ci pale bële mhm. ruy ruy bi ngay jaar mi ngi tudd sayyiduna muhammad alayhi salaatu wa salaam sallallahu in tutiuhu mhm. tahtadu waaw moo tax yàlla ni wa ma ataakum rasul fa faxuzu wa ma nahaakum anhu fantahu in yuti ar rasul faqad ata allah maanaam wala haadi ila salaatika mustaqim wa ala ali xaq qadr maanaam yonent bi mooy yoon bi ngay jaar pour dem ci yàlla amul yoon beneen yoon boo mën a jaar budul yoon wi moo tax mu daan wax ni ana min allahi wal muminuuna minni yéen la man ak yéen la man laak yàlla kon suñu digganteeg yàlla moom moo ci dox waaw ñun suñu digganteeg yàlla suñu maanaam ñun suñu yo maanaam daal suñu yoon mënuñu tëb àgg ci yàlla te jaaruñ ci yonent bi fa anta baabullahi ay ibni ata te su ngeen bëggee ma bëgg leen bëgg leen yonent bi bëgg leen ko te topp ko qul in kuntum tuhibbuna allah fa fattabiuni yuhbibkum allah wa yaxfir lakum zunubakum yàlla mu ni qul wax leen yow yoon ci yàlla muhammad in kuntum tuhibbuna allah wallahi su fekkee sopp ngeen yàlla mm-hmm. ah mm-hmm. topp leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam fattabiuni topp leen ma man yonent bi mm-hmm. su ngeen bëggee yàlla topp leen ma su ngeen ko defee rek yuhbibkumullah yàlla échanger cofeel moom yàlla dina wëlbatiku bëgg leen kon cofeelu yàlla ci ñun mooy ñu topp yoon ci yàlla Muhammad suñu bëgg bu bee yàlla dañu bëgg yàlla bëgg ñu bëgg ñu bëgg yonent rek te bëgg bi du ci am da lay baal très bien wa yaxfir lakum zunuubakum moo tax euh, sëñ bàcc xam nga dama koy wax yi yonent bi mooy jëmmi alxuraan mm-hmm. alquran soxna Aïcha radiyallahu taala dañ ko laaj bi mu ni kaana xuluquhu alquran wallaahi kaana quranan yamshi bayna annaasi wallaahi alquran juy dox la waaw ah, juy dox mooy maanaam oustaz mooy lépp loo xam ni alquran wax na ko ci jikko ci ay sifaat ki ko incarné mooy yonent bi léppam alquran doxam waxam lépp mooy jëmmi alquran gis nga moo tax Mouhamed. alayhi salaatu ñaata la du 92. 92 Mm-hmm. pour wax la dama lay firil xul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni ko allah mm-hmm. suñu bëggee yàlla bëgguñu nañu topp yonent bi ah léegi da ngay jël Muhammad 92 nga teg léegi topp yàlla yi bu ci ëpp doole julli julli ci ëpp doole mm-hmm. léegi julli ñaari ràkku fajar yi euh, du fajar ñaari ràkk la ñaari la waaw léegi jëlal deux ñaari rakk fajar yi. Mhm. muy deux muy deux nga jël ñaari rakk suba yi parce que suba fajar bokkul. bokkul waaw bu ñu nee salaat xayr mina nawm da ngay naafile ñaari rakk faatiha rek ngay tari. Mhm. yonent wax na ci xadis mën nga tari ñaari alam yi. alam nasrah ak alam tara kayfa loolu tam wér na. Mhm. boo amee. rakku fajar. fajar ñaari rakk suba. quatre quatre. nga am ñeenti rakku tisbaar. huit nga am ñeenti ràkku tàkkusaan douze nga am timis trois quinze mhm. nga am euh, ñeenti gée gée muy ñaata dix-neuf dix-neuf très bien waaw nga am safa ñaar muy vingt et un nga am huit benn muy ñaata muy vingt bien mhm. mu tax ki naan duma ma julli safa ak huit heures du am connexion ak bi même parce que du farata <laughs> waaye safa ak lu fort la ah waaw parce que julli est-ce que xam nga julli yi nga julli ci journée bi yëpp huit heures moo koy yéegal. mais foofu tam ñu taxaw bari na ñoom xam ne nee nañ duñ ko julli. parce que ci wàllu achat la ci wàllu fiq rek. lan lan moo ko ciy fekk moom ki ko def. ki ko def da ko def ci xaamidan waaw parce que du farata. bu ko deful wàññiwu ko dara mais ay julleem du yéeg. pour julli gi yéeg fa mu indi saf ak witar la wax li gis nga witar. Mhm. julli yi nga julli ci journée bi yëpp njuumte yi nga ci def witar bi moo koy effacé. witr loolu lay jariñ bàkkaar yi nga def ci journée bi yëpp yi nga juum teegi yëpp witr bee koy effacé léegi nag julli yi bu nit julli du dem kaw asamaan ba mu des julli tàkkusaan ndax mooy salaatul wusta dafa am doole boo ko muy tàkkusaan boo ko jullee rek mu dem mais julli yëpp boo julliwul witr du dem du dem léegi nag di nga ni waaw sunna nu muy tóojee farata am na sunna yoo xam ne am nañ dooley tóoj farata ma jox la euh, ma jox la exemple zakatul fitri zakatul fitri euh, azakay murum koor mhm. koor gi de mooy farata sunna mu akkada la waaw waaye bu ñu suñu woor yi dañ koy aj asamaan bu njëkk zakatul fitri koy yóbbu euh, te pourtant sunna la sunna la <laughs> te pourtant koor gi farata la te boo ko joxul kon moo tax huit heures fort léegi jëlal 22 yooyu plus ko 92 mu jox la 114 114. muy saaratu muy suratu. waaw <laughs> alif lam mim. mu delloowaat la ci yonent bi. alayhi salaatu wa salaam mooy qul in kuntum tuhibbuna allaha kon ku bëgg am connexion sa diggante ak sa borom foog nga jaar ci yoon si yàlla. alayhi salaatu doo dem. moo tax bëgg yonent bi maam Cheikh El Hadj nag ni mandarga bi wane ni bëgg nga yonent bi ci ëpp doole. Mhm. mooy teg sa tànk ci sunna yonent bi aleyhi salaatu salaam bëgg nga ko yaa ngi may seetaan tey ci gàmmu gi yonent bi aleyhi salaatu salaam ñëpp la yéene woon jàmm fexeel ba yéene ñëpp jàmm yonent bi ku rafet jikko la woon fexeel nga rafet jikko yonent bi aleyhi salaatu salaam daamul fayonte fexeel ba yow bul fayonte tey na nañu baale loolu ku bëgg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni yonent bi alayhi salaatu salaam toog na ci jàkka am benn waay bu ñëw dugg tekki tubéyam di tuur ndox ci biir jumaa ji. allahu saxaaba yi bocc jaasi uti ko mu ni dal leen bàyyi leen ko mu continuer tuur ndoxam. allahu akbar ndax su ngeen ko daggee mën na ko lor ndax jumaa ji li muy rëy rëy nit a ko ëpp valeur. parce que bàyyi leen ko ci néegu yàlla de. Mhm. waa tuur ndox ba àggal. yonent bi ni saxaaba yi dem leen ut paanu ndox ngeen tuur. tuur ko fi. woowaa ji ni ko kaay ni ko fii nag néegu yàlla bu nu yal masjid li salaati laa li dawli fii dañ ko tabax pour julli kenn tabaxu ko néegu yàlla la fu mm-hmm. sell la mm-hmm. du pour tour ndox xamaam douche yaa ngi ne le boo mm-hmm. bëggatee tour ndox demal fële waa ji ni ko maa ko tey dama la doon seetlu dañ ma wax ni lu yàlla bind yaa ci gën loolu laa doon teste waaye bis di ki tey am nga candidat bu bees ci a ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah ah. noonu la tuubee dugg ci lislaam Seydi Xaaji Malik ni wa bi xayrihi wa bi xayrihi jalabal wara mhm. wa liman ajaabu naylu xayru maraami kookoy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah mbokk li ñuy wax waaye li fi imam oustaz Jabel fa tabarakallahu développé doy na sëkk sëkkaaral yóbbalu gàmm kon ñun ñëpp nañu góorgóorluwaat ci sopp yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala def comme na ko baayam ba maamam ja daan ñaanee yal na yàlla yokk sunu cofeel ci yonent bi kon nag ñu ngi leen di joxaat di leen wax ne ñu ngi ci weer bi ginnaaw ndokkeel bi ziar bi ñu ngi dellu di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla gën ko dëgëral ñëpp xam nañ taxawaayam ci xadara bi waaye xam nañ taxawaayam it ci penc ma ci HLM ci wàllu daayira yi fa nekk ay ayima ya mu ko seqal ak asatise mu ko bokkal yépp ci wàllu li nga xam ne mooy seen mission diine muy mission ñoŋal diine ji waaye muy mission ñoŋal tarixa bi waaye muy taxawaay bu rëy boo xam ne baayam cheikh bu rëy ba Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz dénk na ko ko kon ñu ngi dellu di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm yàlla defal ko sutura lii mooy nag seen bëccëgu tey indil leen ko ngir rek sunu cofeel yokk ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis ngeen fi mu jaar burdu bi fi mu jaar juddu gi fi mu jaar lépp ci xam-xam bu leer te sell kon ñu ngi dellu di ko ñaanal yàlla dëgëral ko yàlla dolli ko jàmm ñu ngi leen doon dégtal seen émission asaala ci seen télévision DK TV people di leen ñaanal jàmm sutur ak tawféex ak kaaraange ak jàmm ju sax dëkk ci réew mi wa sallallahu ala rasul wa ala ali rasul wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu